salaamaaleykum ladies and gentlemen maa ngi jaar ñëpp ku ne ci turam ak ci santam justice gas El Salvador di dikk ak yéen seen troisième numéro Dekil Rap tey Dekil rab dañu ñëw fii ci Médina di dalal benn artiste di représente Médina di représente Sénégal di représente Saint-Louis ñu koy wax ko si xiin ko si xiin ma nekk benn rappeur mu doon wax old new school wala new school ça dépend après daan dugg ci débat bi mu gën a leer euh, di def chaque année benn show fii si stade maître Babacar si stade Mawade Wade tey jii ñu koy dalal Kossy na nga def. oui salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Saint-Louis TV di nuyu Gas El Salvador di nuyu ñëpp ñuy suivre euh, Déclin Rap quoi. tey jii nii bu ñu doon def euh, présentation Kossy. nan nga ñuy présenter sa bopp. ah bon Kossy Xirma c'est déjà Saint-Louisien moom fii laa juddoo fii laa fii laa amee lépp lu mu am. Donc euh, j'ai commencé à rapper presque depuis 2013, Yagouma aussi, mais bon, j'ai toujours j'ai toujours un objectif majeur quoi pour. Comme, school waa bon new school là je peux dire new school côté côté events mais lyricalement je suis no school quoi ba ma dégloo yi nga xam ni carrément kii mag mooy bind quoi. Euh, ñu dëkk tuuti ci neem bi Kossy Xinma ñu gis ni Kossy euh, non village la. Mhm. bu Baye Niass juddoo. Euh, pourquoi Kossy bi aussi tamit Xinma bi. nekk benn mbóot boo xamante ni bu ñu ko mënoon décrire lan nga ñuy wax si Kossy Xinma mooy lan. comme tu dis tout à l'heure Kossy c'est village mythique donc a ku xam la lu am la quoi donc j'ai j'ai eu ce nom par le par le par la grâce de Sidi c'est mon manager mom ma turbo quoi donc mom moy kuy def ta yalla tax ma aussi ñu donc la pour man ça n'a rien à voir ak c'était avant le rap

j'ai eu la chance de rencontrer Mora Morgan mi nga xam si ne lu ma am si rab rek c'est c'est à lui moom moo ma tette si rab bi moo ma jàngal nu ñuy bindee moo ma jàngal nu ñuy tegu si bit moom ma fital quoi du ñu réeroo si dara actuellement il est Canada mais donc lépp lu ñuy def moom moo si taxaw moom moo ma influencé si rab bi quoi donc moom laa déglu déglu ko déglu ba sentir man dama war a rab li ma dugal si rab c'est c'est Mora Morgan. ban année nga njëkk bon sama première single maa ngi ko depuis 2013 qui s'appelle Jogol. C'est te sama doublé ñaari single laa génnandoo benn égo trip bu ñuy wax is back ak benn son bu ñuy wax Jógal buy expliqué ni da nga war a jóg war quoi donc 2013 laa génnee sama samay première son quoi. ok 2013 nga njëkk a def ce euh, premier son. waaw dugg ci biir mouvement hip hop. exact mais yàgg naa bind nag parce que ku ma xam xam ni bind même bi may bi may nekkee élève dama doon bind di denc quoi. vraiment di bind dama bind dafa yàgg nekk sama passion quoi. ok hmm. léegi genre yow bi nga defee sound après son, bi nga defee sa double single bi fan la yóbbu. ah bon ça m'a ça m'a ça m'a donné parce que déjà ñu bëri si centre boobu lañ ma découvrir donc après gars yu bëri il disaient que ni kon ñu yëguñu woon da ngay rap yow yaa bind lii yaa def lii loolu moo ma lancé ñu joggé ci lolu après di defar ay sound gaay di ñu gënd di ñu gënd di xam ko doon dundé sa bir koñ ak euh, ñu gis ni ñu tepp tepp rek gis ni cause yi rappeur la lay non bon, bon surprise parce que déjà ñom yëgu ñu won man damay rap mais bon euh, côté côté abi ma sama xolé di sank ni ki c'est un c'est un c'est un rappeur quoi xam nga donc yag na aussi di téwal ay concert xam nga di dem di di assister ci ay concert xam nga donc ñoom bu ma gisee may rap ñenn ñi jaaxal na leen ñenn ñi ils disent que ni ñoom luñ jaaxaluñu xamoon nañ ni tôt ou tard nekk rappeur tout à l'heure sama benn copain bi ñu dajal léegi léegi ñu duggee stade ki s'appelle Lamine Sané uh-huh. il me disait que ni man sa nekk rappeur bettu parce que da nga bëgg bëgg affaire de affaire bindantu quoi boobu élève laa woon boobu maa ngi nekkoon lycée technique di jàng moom man moom ñu bokk sixième ba troisième mais dama don bindal souvent quoi. donc après fof la amé influence bi ba xey suba rek ni pourquoi pas duma ma dem studio def sound. mais na ngay mun genre comme ñu gis ni Kossy euh, Khitma. Mhm. Euh, ci côté spirituel dafa xaw jege ben mara. Mhm. na ngay mun dundee musique ak spiritualité bi quoi. ah bon kooku c'est pas un mara je pas pas pas une relation moom c'est pas un mara avec mais c'est c'est mon père quoi donc xam nga sama papa la sama là la sama lépp la et puis bon il sent que nit mom dafa respecter beug beug nit te xam na ni ya a rien de mal entre le rap parce que ku xam message tay bi gëna forcer aduna bi ak dëgg bi si rap bi lañ koy jëlé donc mom aussi suma ma rap amul lu il me félicite souvent que ni da nga wara da nga wara a góorgóorlu li nga nek ndax nit même si dawal mbégé da si wara jël pé donc sonalu ko quoi parce que sonalu ko ça n'a rien à voir avec suñu relation parce que luma ma ak mom lolu je le respecte man koy def comme ni mu ko waree mu may taxaw aussi ci lepp tay luma am rek kooku la quoi lu mu mën di am rek aussi tamit sa ak sa famille ñoom bëgg nañ ko si xidma di rap wala. ah bon du ñëpp ñooy a d'accord aussi si def parce que yàlla sax saa ni mu ni mu tëralee julleeg woor ñëpp d'accord uñ si donc man su ñëpp bëggee d'accord si rab bi sax daf may jaaxal c'est normal ñi ni ma d'accord uñ si ñi loolu moom mooy mooy sama doole parce que bu ñëpp àndee si li may def man du ma si am mbégte quoi li may bëgg mooy kii ni ma man kii ni man bëgg naa su ko defee may may xool entre ki bëgg ak ki bañ nan laa mën a def ba jëmmal li may taxawal donc c'est c'est c'est tout le monde live bi yëpp àdduna bi yëpp nit koo gis muy def dara te yow dèjà émission bi ñuy def nii rek tey mhm. am na koo xam si ne yow sa participé benn famille gëmu gis ñu yow da nga war a topp affaire day def ay rab yooyu du tee aussi nga kon def li ngay def parce que même le prophète ba mu ñëwee indi l'islam mhm. ay mbokam dañ taxaw ni que lii ay xërëm la mu toog di si faayal ba tey l'islam moo moo répandre bi yëpp loolu la quoi gëm nga ni yow bis tey ji hip hop dana la fay mais man je dis

ex Mollah <laughs> c'est-à-dire soriwul quoi. ba ci ñu bëri dañ naan tey wax ci loolu. ça me fait gën pour te dire Sidi Sidi il est témoin gën day critique nu may bindee sax parce que nee na ma man je peux faire mieux nee man ba léegi xalaatuma damay fo sama taxi yi nii nii sax démb rek dafa doon classe. mais seen seen concept yi ni ngeen di bindee soriwul quoi. boo naturellement boo xoolee dañ siy sentir ci biir Mollah Morgun. c'est normal gars ku ku ku tëddaaleeg mar ndox ngay gént Mor c'est est man je suis un produit de Mollah Morgun déggoon mu la wax c' est lui qui m'a influencé pour mon rap. mais est ce que tamit aussi tamit. yow mënoo indi sa benn style bu particulier comme gars yi ni ñu koy defee tey jii nii boo gisee ay ñoom dip. Hmm. amoon nañ ay références ci bopp bi mais bi ñu ñëwee dañ indi seen style particulier. loolu mais mais mais style bi c' est à dire lan mooy style bi dip quand tu écoutes man quand j' écoute dip rap man je je sens un Morgan. même même Dakar seetaan naa dip ñu introduire ni nga booy xaaral nga toppandoo Morgan. parce que bon mais ba léegi am na style bu particulier. mais moi aussi j'ai j'ai mon j'ai mon style très particulier parce que gën moom gisul sama bopp gisul bopam fi man mom gisul ni man man ak mom dañ juro non c'est-à-dire Mollah Morgun mom hmm. moom mooy artiste bi gëna naxari convaincre ci Sénégal exactement xam nañ ko voilà mom mom néna sax mom instant ni gal sen gars yi rabuñu moom loolu la <laughs> tout le temps man damay suivre mola <laughs> morgan c'est vrai mais mais yow c'est say say ay texte hmm. parce que man en tant que man aussi j'étais fan de mola morgan. effectivement bi muy nekk ci kër gi hmm. mais ça ay texte heure bu ma koy déglu rek dama ci sentir man ci biir mola mais parce que loolu lu baax la gas xam nga gën ku ko déglu xam ni c'est un lyriciste kooku du bindantu quoi day bind man fumay fumay su may suivre da damay suivre li nga xam te ne nii au moins am na am na fond te gën su may déglu ay son ba album moom su may déglu damay sentir ni carrément man sax bindaguma c'est normal aussi su may bind ñu sentir ni kii parce que ku nekk ki ngay déglu xam nga man lu gars yi naa nga lu rayati mbuum déjà ku wedd da ngay laa gerte Morgan c'est normal si je gars sont Morgan parce que moi je suis un artiste un artiste je suis rek Morgan rek di ni man c'est normal gars ni j'écris comme moi, Morgan mais ba amul texte bu gën mo sa yëkëti ni ma au contraire moy lay sax ni may yow bindo da ngay war nga def c'est très rare mo envoyé texte un mu valider c'est très rare Siri duma baye ma fa Mola Morgan mom mom munoko munoko convaincre ci dara mom mom mom de passage du jar Mola Morgan wala aussi tamit di wax euh, sa projet sa projet tay di ni ñu gis ni mm. depuis 2 2 à 4 ans ya nga rap gisugul ben projet bo xamanteni tek nako euh la mo waral lolu yexay bi lan la wala da ngay das fananal mm. wala bon son yu ñoo bari wala inspiration be daw non déjà ñaari mbir mi ngi ci quoi un bi ñeek bi mom moy déjà man

pour pour man projet mooy œuvre boo xamante ni tey jii artistes yi teg na. mais gas loolu tey jii yow tey jii tey jii imagine tey jii Kossy Khitma bu xëyoon suba bàyyi rap. Mm-hmm. amul benn projet boo xamante ni Kossy Khitma teg na ko ci hip hop. effectivement c'est ça à part événement yi def. Mm-hmm. mais projet hip hop mel ni EP maxi. mais gas loolu obligatoirement je le fais waxuma sax ay waxu naturellement bi ma war a génne waxu naturellement sax man dama ko suur parce que dama ko def jox ay nit ñu déglu. gars yi ni ma ñun waxuñu waxu lyrique si de comme tu t'as noonu wax musicalement ñun gis nañu war nga mën changer musique bi mu dàqaat lii au moins ku ne mën la déglu te si loolu laa nekk mais bu doon loolu sama projet génn bu yaa parce que mënu ma di annoncer projet at ba at normalement waru ma woon concerté indi projet bi mais yàquwul en tout cas je promets gars yi leen suñu concerté pare du yàgg tuuti dinaa leen jox date line bu am si ok mais bu ñu génnee ci projet bi. tey jii nii ci côté lyrique cest à ci côté ci côté forme son. Hmm. dañ doon gis ni. Euh, Kossy da daan da daan hmm. mais tey jii ñu gis ni dafay commencé dugal ay musique di way. Hmm. aussi tamit est-ce que adapté nga ci musique boobu noonu quoi ci musique si way. parce que euh, gis nañ fi ay rappeurs. yoo xam ne dañuy dañuy dañuy way. mais seen voice moo leen koy may quoi. c'est vrai tey est-ce que voice Kossy may na ko tey jii muy way. waaw mais loo gis fi àdduna rek c'est à base même la prophète gars yi neen bu mu nekkee xale lañ ko tàmmal la tàmm di jàng xam nga di di di jub ba tool loolu moo ko may tey li am parce que boo nekkee xale man bu déjà musique xale laa parce que juddoogu ma si xamaguñ ma sax déjà xam yu métti yooyu noonu jànkurante donc à base à nii nii may tàmbali laa war a mën a tàmbal sama bopp moom mooy yooyu que man sama constat bu ma def la yàgg a gars yi dafaa dañ ci werante ba fajar man leen man man dama gis ni si kanam tuuti tuuti tuuti rab bi day wàccaat de trop léegi li ñu indi mooy musique te loolu moo commencé feeñ Sénégal légui actuellement ni ñun rappeurs pour nga def def suñu différence ak mbalaxmaan yi sax c'est tout un problème musicalement da nga gis légui biit yi dañ ko mélanger ak affaire de ay ay instrument mbala xam nga ak kërëb kërëb mais lolu nekkul ci rap rek bo tënkoo ci rap rek da ngay muju kale pourquoi pas nuñ mën a def ba mëndi wayantu xam nga di mélangé hip hop bi aussi mais rap hip hop bi xam nga la man rap hip hop bi xam nga la moo am sens le message message mo am sens quoi bu ñu demee tey ba gaay di tassu su ko defee ñu ne ah léegi le rap n'existe pas. mais mais hip hop dafa am ay identité am ay normes c'est-à-dire buñ né hip hop. Mm-hmm. bit motax ñuy wax grosse caisse caisse bi ak caisse bi mais bu ñu demee dugal instrument bu ñu instrument bu koy dugal ci hip hop bi tamit gisoon hip hop bi ñu ngi dee non du dee xam nga dama du dee États-Unis bu gars di commencé rap vidéo nga doon dégg ay émo bi ay ay ay ay ay wutan keneen déggatoo mais ba léegi am na ay. ay non yoo xamante ni tey jii ñu ngi gérer vidéo yi. non déggoo ma la message bi moo fa mais loo gisee am exception ñëpp mënuñu ñu transport ñëpp mënuñu def seen transport dem si dem si dem si euh, euh, bii di fe bii di xew léegi wala afro bii di nigérien di génn ñëpp mënuñu si ñëwandoo fukkeen kuk gëmul ni carrément ñoom dañu war a ñëw rek adapté si biir ñoom li ñu gëm mooy style boobu lañu war a mën a protéger. foo nga jaay lu pour man suñu ma déggee mooy da nga pare yow tey pour pour am xaalis ci hip hop bi quoi. ah mais pour dundal hip hop bi quoi. mais dundal hip hop bi Gallas yow nga dem teg événement bi de stade. <laughs> non non mun nga teg événement loolu c' est vrai mun nga teg événement teg lépp quoi. mais c'est-à-dire hip hop bi mooy identité hip hop bi bi nga xamante ni. tey jii nii moom moo moom hip hop bi si la juddu. gars yi doon fight loolu noonu. non bis boo xëyee waaw Rapaju bi ñu ñëwee. waaw bi ñu ñëwee dañu ñëwoon fekk gars yi quoi changé identité hip hop bi. ñu ñëw teg fi concept hip hop hardcore bi. Mhm. peut être tey jii nii ku fi hardcore dañ lay ree quoi. mais mhm. pour man mooy mooy originalité hip hop bi quoi. dëgg la yow tey jii hip hop bi business nga ko def. wala da nga ko def gis nga originalité ah originalité mooy li mu wax rek gis nga bu njëkk ba bu njëkk ba suñu maam yow yëri nga sol ni soluñu ko woon te terew la nekk nit ñoom terew la nekk nit mais tey sañatoo fi jël ay ay genre yëre yooyu noonu xam ni nga expliqué tamit am ñaari mbagg nii sañatoo jël voilà faaru mbaam yow sañoo ko sol te suñu maam moom la ñoon sol di génn di dox seen soxla ak yëpp xam nga suñu maire yi dañ doon wodd guddeeg bëccëg moo suñu xam luy tubay affaire yooyu noonu mais tey dafa changé gars yi ngi sol itam mais nekk nit de mooy loox c'est-à-dire moom mooy déracinement bi rek waaw mais du déracinement non du question de déracinement xam nga question de lan la question de jaay la musique du ay toog dugg studio yor di enregistré mais da jaay parce que enregistrement bi ngay def yow c' est pas c' est pas c' est pas gratuit man damay fay pour enregistrer. kon no pain no gain exactement c' ça. <laughs> la euh, léegi dañuy dugg si show bi quoi. Mm, mm. ñu gis ni daaw mooy première show événement du Nord. effectivement euh, nga teg affaire bi nice trop. Mm-hmm. gars yi ñëw. sa entourage hip hop Saint-Louis ñëpp ñëw support la nga teg stade bi moo waadu waadu affaire bi cool quoi yàgg sa ay équipe tamit ngeen mm-hmm. ñëw job si lu rëy xam nga euh, tey jii nii mm-hmm. nga pour teg le premier mm-hmm. euh, expliqué ñu nan ngeen ni préparé ren gi ni événement du Nord bi quoi ak concept bi fa la jógee tamit bu mu ne au début nga wax ñu concept bi fa la jógee après ñu dugg ci événement ren bi quoi xam nga yaakaar émission yi ma jaar j'ai expliqué le concept xam nga lu fu idée bi jógee et tout wax naa ko nee naa l'idée est venue naturellement ñun dañ ko xalaat naturellement rek ko xalaatee dañ ko xalaat par rapport ak positif posi euh, lu positif lañ bëgg def c'est-à-dire ñun bu ñu naree def li nga xamante ni mi ngi fi woon ñu bàyyi liñ bëgg def pour gars yi mënu def suñu différence ak nit ñi mooy indi fi loo xamante ni moo si fi am alhamdulilah ñun ñooy rapport bu njëkk teg concert stade fii nii à Saint-Louis kii il l'a fait à Dakar il l'a fait à Louga mais ñun ndar ñoo fi njëkk def te loolu il fallait ñu def ko pour mëne def suñu différence ak li fi nekk parce que bu féké place Abdoulaye Wade la gars ñu fait concert féké place Abdoulaye Wade la concert nañ fa institut français concert nañ fa yeneen lieu yëpp concert nañ mais stade dama bëgg suñu waxat wax stade rek au moins ñu né le précurseur du stade moom mooy Kossy Khidma loolu moo ñu ci dugal et puis daaw def nañ ko ak première édition mu metti woon trop mais mooy lu mu wax rek man peut être gars yi man la ñuy gis si lu bëri ay émission mais équipe bi ñi nga xam te ñoo gérer liggéey bi man dama yem tëdd sama gars di nelaw ñoom ñooy liggéey quoi donc xam nga ñoom ñoo ñoo ñoo support affaire yi taxawal ko ba mu taxaw man ñëw rappé rek wàcc laa si am ñëw ñu def lu nice après nekk dox sa dox ok mais léegi bon événement bi ren yéen a ngi koy pare affaire mi ngi cool mën mhm. euh, nañ xam yan guest ngeen invité ren Ah bon, on aura, on aura, on aura Djamirou, on aura aussi des, des, des on aura euh, nekk Dakar, ñoom tamit ñoom man ak ñoom ñu bokk label. Am nañ aussi ay rappeurs yu jógee Richard Toll, euh, Dagana. Euh, zone nord parce que comme c'est l'événement du nord on préfère xam nga zone nord bi mais comme guest star on aura ñooñu lañ am comme comme comme invité. mais c'est 100 hip hop. Ouais, 100 hip hop amul rien du tout c'est 100 hip hop. affaire bi fay am entrée wala c'est gratuit non c'est pas pas gratuit quoi donc entrée la parce que moi la rek stade lañ jël donc stade xam nga jëluñu ko parce que dañu ko. mais c'est trop risqué aussi. c'est pas risqué parce que ni on a vendu plus de 300 tickets. Oh. non non c'est pas risqué. bu fekkee jaay ticket rek nii nii suñu neexoon dañu naan gars yi nañ bloqué jaay ticket bi suñ xam nga parce que instant jaay nañ le maximum vraiment mais comme dañu dañu génne woon 500 tickets fii bëgg le premier donc dañuy jaay leur si ticket yi après nice mais instant yi c' est pas le risque parce que déjà gars yi dañu ak doole ah vraiment. ok objectif bi lan la feesal stade bi la wala feesal poche yi la. non objectif fetel stade la parce que. mais mais aussi tamit stade de 3000 personnes foo dire 300 tickets de finance code, est ce que du jësaakalisé. gas moo dee nee na jësaakalisé quoi mais daaw ñëwoon nga fi ndegam daaw lañ koy jësaakalisé première édition wax wax balaa ren ren on va faire le triple ah. triple lañu def dañu triple waaw bien sûr bien sûr bien sûr. déjà man ak sama waa koñ rek. buñ ñëwee day day dañuy am dara wax ma la xam nga côté bu nekk artiste bi ñu fa jëlee lu mu deedee booy Louga dèjà artiste bi ñu fa jëlee bu ñu ñëw dañuy ak ful fii moom je te la je te la garantie ah, daa fekk daa fekk laa la nit ñu dul jeex di nga yéemu quoi daaw moom ku yéemoon ren ngay gën a yéemu loolu mom seen promesse euh, comme ñu ngi lay jaajëfal euh, di wax ni temps bi ñu moon ci émission bi jeex mm-hmm. aussi tamit di am contenté euh, ci dalal bi la dalal tay ci ni sa dernier mot en tout cas di la féliciter déjà au gas parce que depuis depuis le début xam nga yene japp ci job bi wax na ko dem radio néna naa gayeen ndar mom amu seen fay quoi parce que muy côté DJ côté lu mu mënti nekk gars yi pa japp ci affaire yi xam nga yow lañu lañ dégg nga ma boy pourquoi pas du ma fa jaay ñu def ben émission xam nga mu nek lu nice loo dama koy support di bëgg wa Saint Louis TV yépp sa gaay nga andal di bëgg sama manager Siri di bëgg Raxu Cheikh Diagne xam nga Mam Kha Oumar Gaye yi gars yëpp di jàpp si job yi donc amu seen fay xam nga vraiment taxawal nañ affaire yi instant moom ñëw jouer rek moo si des quoi affaire bi nice

Euh, di leen jaajëfal euh, di leen wax na leen Dekkil Rap tey dafa woon fii ci Médina ma Mawade Wade doon dalal ko si ma ci émission bi euh, di rafetlu aussi tamit ci kàddu yu mu fiy jib aussi tamit di jaajëfal équipe am ak gars yi nga xam ni ñoom ñëpp ñoo ànd ci événement bi di ko job ak moom quoi jaajëf one love di leen jox dig daje ci yeneen numéro jaajëf